teel koo gis li ñuy wax diagnostic précoce parce que bacille bi koy joxee mooy bacille de Hansen am nañ laboratoire yi nga xamante ne fu ñu toll fi mu nekk ci quatorze régions yëpp mën nañ ko gis ci département yi diagnostic précoce boobu nag wër ko gis ko dafay tax ñu teel koo faj ñu ngi gërëm bu baax waa commission santé soldat action euh, ak action sociale bi nga xamante ne ñoom gis nañ ñu càmbaree rapport bi wax nañ ñu ne

day wër këng ma rappelé ne doomu jàngoro bi mun na nekk ci ay nit ay atti atti at te kenn du ko gis léegi ci école yi de formation yi yëpp malgré ñu contrôler feebar bi dafa mel ni Covid bi rek dañ koy xel di continuer di jàngale parce que feebar yi dañu dem mais ku ne xam ne ne ak li ñuy wax changement climatique ak promiscuité ak ni nit ñi dëkkee ak ni nit ñi di lekke yooyu yëpp du lepp rek du feebaru ngaana feebar yu bari ñu ngi dellusiwaat gis nañ ne peste bi nga xamante ne woon suñu maam yi dañu bañ ba ne doo wax sax pes dañu naan la feebar bu bon bi gis nañu am na ay dëkk ay continent yi mu deel si moo tax tey ba dem boo demee faculté de médecine muy fii muy Ziguinchor muy feneen ñu ngi koy konne di jàngale feebar duñ ko bàyyi di jàngale diagnostic presse boobu traitement précoce bu ñu amul itam Sénégal teg na ay jumtukaay yoo xam ne bu nit ki demee ba am ko fajuñu ko heure bañ ko war a fajee ba mu am handicap am nañ presque dans toutes les régions li ñuy wax ay CRAO ay centre de réadaptation yoo xamante ne am na ay chaise roulante am na ay lunettes am na bépp jumtukaay boo xam ne nit ki mun na fexe ba nga xamante ne handicap lourd boobu mu doon indi dina fexe ba ñu wàññi ko. handicap boobu nag itam action sociale da ciy jublu bu baax a baax loolu dinaa si dellu si wax li nga xam ne état Sénégal teg na ko donc fi mu nekk nii diagnostic précoce traitement précoce prévention des invalidités mais tey bu ñu ñëwee fii pour ngeen jàppale ñu yéen ñi nga xam ne député du peuple ba nga xamante ne euh, dañuy euh, abrogé loi de 1976 moo wax lu en 1976 ñu def ko rappelé ko de bi nga nañ commission bi Covid bi bi muy soog de ñun Nous avons même ñun nous nga ko nous ba nga xamne Nous doon dem jëli nit ñi dañuy mel ni ay cosmonaute même nous xam dañuy dem ci mais gis ngeen ci bi nous dem dañuy def comme ñëpp gis ngeen Congo bi am barki des dem nañ ba rob ko ak bi nga lañ ko nous, noonu la ko organisation mondiale de la santé buggé kenn gisul ni nga xam ne nañ koy mais dañ ko def entraînement digne et sécurisé feebar nag noonu lay en du Sénégal rek te benn solution lañ amoon mooy jël nit ki du tuberculose dem fi nga tuberculose dañ jël def leen parce que nit moo mel noonu boo gisee li nekk ci kanamam daf mais avec la recherche sur le plan international le Sénégal tamit desu ci gannaaw gis nañ ne léegi antibiotique majeur ñoo fi nekk ñu di ko faj ba nit ki dootul amati benn benn mandarga boo xam ne feebaru ngaana la ma rappelé également ne loolu euh, honorable député kenn du ci fay dara fi mu ne ku ñu ko gis tey sur l'ensemble du territoire aajul ngay ñëw Dakar foofu lañ lay fajee même bu nekkee poste de santé la te kenn du ci gis dara donc ñuy ñaan ngeen dimbale ñu abrogé loi bi parce que day indi euh, li ñuy wax nit ki dañ koy beddi beddi ko ragal ko te loolu jaru ko parce que même su nekkee feebar bi dafa nekk sous contrôle tey jii gisaat nañ ne li ma ko waxee feebar bi dellu na gannaaw lool mais am na ay bërëb yoo xam ne am na fa. bi ñu defee suñu enquête épidémiologique gis nañ ne nekkul ne ci village de reclassement yi rek la nekk wax nañ leen tey ne honorable député am na ko te ñëpp mun nañ ko am gis ngeen fi mu nekk sur l' ensemble des régions et des territoires xam nañ fan la am ak naka la fa amee te ñu ngi koy saytu donc. soxlaatul ñu di ko ragal am na feneen te nekkatul ci fi nga xamante ne fa la village de reclassement yi nekk village de reclassement yi boo seetee ñaar ñu am feebaru ngaana bu ñu amee doom fexe nañ ba doom boobu dootu ko amati donc gisatuñ lu tax ñu war ko tey di ko ne di beddi ay nit donc ñu ngi ñaan vraiment ñu defal ñu ko te état du Sénégal xaru rek tey bés bi nga xamante ne jàpp nañ ne dinañ ko abrogé état du Sénégal dafa ànd sur le plan multisectoriel mooy du santé kese ak action sociale mais c'est tout le gouvernement et ses partenaires tey sur le plan scolaire gis ngeen école yi boo demee ci village de reclassement yi école yaa nga fa gis nañ sur le plan environnemental li nit ñëpp war a am ñu nga euh, sur le plan euh, euh, de l'agriculture ay barrages, ñu ngi defal ay forage sur le plan des projets gis nañ ñu 252 projets loolu yëpp commission bi am na les donc Sénégal xaarul tey rek ba tey bi nga xam ne dañuy xaar di ko abrogé mais dañu jàppoon ne ñii ay doomu aadama lañ ay doomu sénégalais lañ li ñëpp am war nañ ko am mais boo gisee ñu dañu abrogé loi bi parce que village yooyu am na benn député bu ko wax dem nañ ba ne dañuy fay impôt parce que dañu leen teggaloon ay impôt parce que boolewuñu leen ci kenn mais il y a une économie boo développement social nous sommes vraiment M. le président honorable ak euh, députés, nous àndal chef député yi ñu ba loolu nous ñu quelque chose comme 2 556 bénéficiaires pour un montant de 64 millions 500 000, loolu les jàppee rek scolaire de 2012 à 2022 état du Sénégal bu ñëwee ci formation professionnelle ni ñu joxe dëkk yëpp ko joxe ci 314 bénéficiaires pour un montant de 106 millions 370 000. sur les projets économiques 252 projets pour un montant de 665 millions 369 425 Nous avons consulté les infrastructures les logements nous ngi def lépp loo xam ne euh, santé action sociale ay postes de santé tey boo demee village de Pékou bi nga xamante ne man liggéey naa fa tey boo demee sage-femme ba fa nekk ak infirmier ba dawuñu leen

mais maîtriser nañ ko contrôler nañ ko di def ay émission di def ay spot wane ni nga xamante ne noonu la doomu jàngoro bi di duggee ci nit ki ak noo la Sénégal avec la ak lépp prévention des invalidités donc ñu ngi ñaan euh, euh, président ak ñi ñu fexe ba projet bi nga xamante ne indi nañ ko fi ñu fexe ba dindi ko fi nga xam ne Sénégal dina gën a mën a sigi sigi na gaa sur la maîtrise et le contrôle de la maladie mais dina gën a mën a sigi ci li nga xamante ne mooy les droits de l'homme dina gën a mën a sigi ci lépp loo xam ne day indi beddukanté donc loolu bëggoon naa ko ci wax dama xamul ndax ndax comme si même débat bi la ñu waxee affaire manifestation yi may dalal xel yi rek di dalal xel yi di wax ne keroog bi nga xamante ne am na dañoo déclenché li nga xam ne mooy ay plan blanc te suñu hôpitaux yi ak suñu structure de santé yépp ak niveau bu mu ci munti doon bu ngeen demee contrôler débordé wul santé nag ak action sociale des fois dañ jutul wax lu bëri mais boobu ba léegi ñu ngi circuler ñu ngi jot ay rapport rapport yi jox nañ ko ñi ñu ko war a jox mais amul benn débordement te lancé nañu sur le plan blanc ne ku am tey gaañu gaañu doo faj dara amul kenn koo xamante ne tey ñu ngi lay jël en charge te yaa ngi ciy fay dara ñi nga xamante ne rek yàlla jël na seen bakkan ñu ngi wu askan wi ñu ngi jaale ñëpp di ñaan yàlla xare leen ci àddina bi gën a kawe mais ñooñu itam ndegem boo tëbee nii rek tey jii nit amoon malaise fii bu ñu la yóbboo tey duñ joxe sa koor nit dafa am lu mu àndal dafa am ñoo xam ne ñun daf ñuy dépassé c'est sur le plan juridique ba nga xamante ne autopsie daf ci am te ma wax ne depuis vendredi autopsie yi commencé na boo demee tey ci morgue itam amul benn débordement parce que ñun ñuy wax fii aussi ay docteur la dëgg la dañ naan docteur yi seen xol yi xaj ne dafa dëgër en ah, docteur Malick honorable mais itam ay doomu aadama lañ fi mu ne ñu ngi contrôler e euh, euh, chronogramme bi nga xamante ne euh, joxe nañ ko pour autopsie dañ ko def et heure boo xamante ne autopsie yi pare na dinañ ko jox seen ay waajur parce que dañuy wax ne manifestation am ni bu amee ñu tëb rek mun a joxe koor yi mais ma dalal nit ñi

gouverneur yi ñu ngi ci préfet yi ñu ngi ci police judiciaire mu ngi ci lépp loo xam te ne aw na yoon ñu ngi ko ciy def di ñaan yàlla li yal fi géej ñu leen di gërëm leen di sant. merci madame ah, peut-être honorable président Balma euh, rek dama fàtte pour euh, honorable yi nga xam ne dañuy wax affaire euh, seen structure de santé ma wax leen ne am na ñoo xam ne boo demee tey fu mel ni Euh, pour nag transformer post de santé centre de santé yooyu noonu dafa am benn liggéey bu mu laaj ñu ngi si mais képp koo xam ne amagul hôpital centre de santé bi ñu ngi koy réhabilité donc Vélingara moom gis na li ñu fa indi Kaolack defar nañ ko mais euh, xëy na mun naa la ko fii di ngeen am scanner bu bees mais mu ñël la ñu léegi rek fii ak de décembre su neexee yàlla dinañu réhabilité parce que soo excellence le président Macky Sall def nañu ne xëy na yu bees yi dootul mën a bëri mais fépp foo xam ne structure de santé la dañ ko réhabilité loolu moom Merci Madame le Ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote de l'article unique du texte de, de la loi. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Article unique la loi 7603 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lèpres guéris et mutilés et abrogée.